dem si beneen combat taal dafa am lu ma bëgg a fàttali mbaadu ñun damay dem si beneen combat ñaar ñooñ moom bëri ngeen ki muy Eumeu Sène daan na la mut loo daan nga ko ñoom ñaar ñu war a bëri mu nekk combat boo xam ne dañ ne comme am na sax wax combat la boo ne dañ ne ki ci daanu leen leen yërëm bés boobu. waaw loolu dëgg la <laughs> làmb métti walaay ku ci daanu moom nañ la moom ku ci daanu yërëm nañ la franchement waaw. lu tax ku ci daanu ñu war a laa yërëm. parce que bu dee Eumeu Sène la moom moom di nga ko yërëm. ndax euh, déjà risques yi mu def pour mën a bëre la. dama daa def ay risques. waaw risques yi muy def laa wax comme par exemple kon ñi ñu koy defee. waxee ma pour man deneen ko maanaam tey ku bëree fekk ku daanu nga bëri ak moom déjà risque la te mu ngi bëri combat revanche boo xamante ne si tamit mhm. combat bu mu soxla la. ba pare nekk roi des arènes. loolu moo tax moo xëy noonu quoi. maanaam kon moom da nga gis ne risque ci côté am la ëppee. <coughs> non du ma ne risque la rek ci moom. waaw Modou loo tamit risque la ci moom mu ngi jóge ci defet en même temps jëlaat combat automatiquement kon ku ci daanu yërëm lañ la. ku ci daanu lu mu la mën a yóbbee. ah ci li des sa <laughs> dootul neex moom hmm. yàlla nañ ci yàlla musal mais dootul neex ah parce que làmb léegi ni ko gars yi di ko programmer moom. daa métti <laughs> daa mais li ci amoon bu njëkk parce que soon nañ ko ba bu yàgg bu mett xeex bëri xeex bëri ba yàlla def mu loolu am ndam xalaat nga loolu amaat ci. mun na amaat kay parce ñoom ñaar dañuy ñëw rek bëri mu jeex nii xeex mun na ci amaat bëriwaat li ci amoon sax mun na ci amaat waaw ba pare jël doo am. mais la ci amoon est ce que bu amaatee bi yoon xalaat nga Modou Lo am la mu amoon ci Eumeu Sène. waa xam nga ku dul juum moom doo daanu. mais li ci amoon tam mën na am Modou Lo am ndam li ci am mun na amaat tamit Eumeu seen am ndam. ñaari mbër yi ñam nga leen ñoom ñaar ñëpp bu gaaw ku mu gën a ñaari mbër yëpp nag bëgguñu bëri bu ñoom ñaar ñoo yem moo tax làmb jooju mënuñoo rek ñu bëri nii ñoom waaw ñoom dañu bëgg a làmb koo xamante ne da nga koy calculer jàpp-jàpp donc ñoom ñaar ñoo yem moo tax lamb jooju du gaaw waaw. côté xeex tamit ku ci gën a dàq kan moo ci tane xeex. non Modou moo dàq xeex. Modou moo dàq xeex euh, xeex bi wax dëgg yàlla moo gën a jaar yoon mais xam nga xeexu làmb moom waa xeex la xeexu mbedd la. mais boo doon xeex tey da nga naan xeex mais tamit ma si leen dar la xeexkat la moom tamit waaye mais xeexu làmb moom du feeñ. du feeñ moom waaw. côté doole mën nañ ko ëppante ñoom ñaar. waaw mën nañ ko nekk mën nañ ko. kan nga yaakaar mooy ëpp doole si bés boobu. waaw xam nga Modou boo seetee action continue la def compétir boo xamante teggul benn yoon. dafa jóge ci yow continuer. waaw daa continuer action continue moom mu ci compétition boobu bu baax la am seen aussi tamit ba léegi action continue la def mu ngi doon ci ay entraînement mu ngi doon di xaar combat. te yàlla jox na combat moom tamit action continue na def ñoom ñaan ñëpp nekk nii récupération bu doy entraînement bu doy xam noo koy defee balaa ngaa kalaate sinon ku ci kalaate rek bu su làmb bi ba ñëwee di nga ko kon daal maanaam entraîné ba far boo yëg see làmb ji waroon am doole far oyof. voilà donc wala coono jàpp la. waaw mooy coono rek par far oyof parce que bu la boo amee coono rek oyof nga. mais nag lu seen entraîneur yi peut-être gën a ëpp ma leen encadrement ëpp ma leen sax mais am nañu encadrement yoo xam ne peut-être dinañ leen ko wax entraînement ba classé parce que kon combat bi presque léegi bientôt na boobu ba léegi ñu ngi entraîné kenn ku nekk dafa jóge ci combat rek am combat kon donc loolu classement bi rek nañ ko moytu. am na ñoo Modou loo koy moytuloo ci Eumeu Sène. kan ci Modou loo koy moytuloo ci Eumeu Sène. li ma koy moytuloo ci Eumeu Sène est-ce que war naa moytu Eumeu seen yow laay laaj de. ma waru ko moytu ah. am nga war naa moytu. am na lan lay war a moytu moytuwul dara waru moytu dara ñoom ñaar ñëpp amul kenn koo xamante ne da ngay moytu sa morom bëri la ñuy def nag xam naa ne dinañ indi doole dinañ indi entraînement dinañ indi xam-xam bu macha allah yàlla jox na leen ko mais kenn ku nekk daal amoo loo war a moytu sa morom waaye daal entraînement bu bëri moom am na solo ndax seen combat dañ koy consigné. ay conskat la. waaw ah, ñoom dañuy cons kam ba. sa waajal noonu la nañ cons. <laughs> ak ah, giri sama xarit bi. siyaar naa la <laughs> ah, moom mooy loolu <laughs> borom baax la macha allah. ba tey mu ngi xaar combat nag ndax dégg nañ ko fa ne benn déclaration mu ne bii yoon boo dellusee moom du ngeen yegg ci conse sax ci ay minutes yu néew la lay lijjanti dem yoonam. waaw loolu yàlla baax na comme àgguñ ci rek donc mënu ma wax leen loo xamante ne vraiment àgguñ ci nga xam naa ne nit ku baax la. sama waay la waaw. mu mel ni daam seen diggante yéen ñaar léegi. non loolu moom làmb moo ñu boole rek mais sama waay la daal. parce que avant ngeen di bëre li amul woon de Balla. waaw mu bu am combat amul léegi da naan kii du lu tax ngay soppeekoo noonu. non man sax <laughs> du sax xam nga nit moom. ku nekk ak euh, la yàlla bindee. man xëy na peut-être yàlla noonu mu bindee ci làmb mais bu weesoo làmb mënuma di wax sax nit di ko xool xool bu yàgg wala mënuma ko yàlla moom bindee noonu xëy na peut-être espoir moo tax mu demee noonu. mais xam nga moom bëri na ak mbër bu nee nag ah. demalante bi dikkalante bi mais dafa dafa farlu ko moom dafa nekk ni comme waaw ni comme farata te yëfu kilifa lay def vraiment man lu baax li ma ko xamal nag laa koy waxal waaw wax dëgg yàlla. léegi moo jiite seen kuréel bi association des leaders en loolu lañ ñu wax noonu noo gisee Gris Bordeaux te bàyyeegul bëree. waaw mais c'est normal xam nga Babacar boo demee IMSES Paris dangay gis koo xamante ne tey footballeur la bu paree de ci biir football bi day def formation pour bu paree bàyyi football mën a nekk entraîneur. kon daal li mu def li mu leen jiite ni yow ànd nga ci. Ah, nañ ci ñëpp ànd nañ ci te man ànd naa ci. en même temps gis nañ ko mu nekk wala mu yore sax émission Walfadjri te bàyyeegul lam am ñuy wax ne waru kon ko def parce que day bëre ba tey yow looy wax si loolu. waaw man mii sax boo ko amoon dama koy def hmm. actuellement bu la jool liggéey la en fait liggéey la xam nga nit dañu fàtte ne làmb après day jeex